man mooy sama centre culturel centre culturel Aïssatou Paye Fall je te jure de bopp bi de comme centre culturel li mu xam mu feese ko dell ci yëpp <laughs> culture macha allah ah ma koy catu waa dëgg de wax na dëgg de macha macha allah <laughs> loolu de xanaa mooy bu ma catu <laughs> kon yàlla la yàlla lafal chat ah Aïssatou Paye Fall toujours un plaisir de la retrouver euh, man yaa ma gënal mais drôle de dame euh, tu es souriante tu es magnifique euh, ku la xool xam ni da nga yëngu bu baax ci wàllu culture ndax yenn saa yi nga def ay càqu peme tey def nga sa juróom-ñaar fukki caq bi xaw ma peme la xaw ma lan la mais vrai vrai vrai vrai homme de culture. ombre. quoi. ombre. ombre mooy lan. waaw ah, caq ah, bi ombre la tudd. ombre ambre ah, man damaa xam luy ambre. <laughs> ah ba tey ngeen may wax les les mots faciles <laughs> est a que xam nga ni par exemple journal français facile bi laay déglu. man du ma déglu journal bu fort bi <laughs> voilà alors tey on parlera livre hier tu as raté mais on a on a on a reçu euh, professeur de lettres bi nekk lycée Lamine Gueye di Mame on a parlé littérature. Poésie, on a parlé euh, poésie, surtout. ah démb fàttaliku nañu ba fàttaliku le corbeau et le renard. Euh, tu as tu partie bu neex démb ci yeewu leen mais tey mm. danañu waxtaan ak ki nga xamante ni moo di madame ba Gueye euh, di écrivaine ou écrivain paraît-il que ñaar yëpp dañu koy wax alors euh, moom dina dinañu euh, dem seeti livre bi mu tuddee la femme parfum waaw léegi. n'est-ce pas waaw la femme parfum keneen moo ko bind. keneen moo ko def d'accord léegi moom. day def ay elle est conteuse. d'accord moi je pensais que moom moo def la femme par non en fait j'ai du mal écrire peut-être. voilà tu as succédé xam naa nga ne moom la. d'accord voilà léegi moom elle est elle fait partie de de l'asso membre association écrivain du Sénégal yi la. d'accord ñu am benn association conteur du Sénégal. Oui. donc moom elle est conteuse. Mhm. mais moom day yëngu tamit ci promotion des langues nationales. day bind ci wolof ci mandingue. ci pël ak ci français. Euh, donc moom compte yi léegi daf koy bind. day bind compte yi léegi man dama bëggoon xam euh, moom lan moo tax muy bind compte yi parce que boo nee compte ñëpp xam nañ ne c'est c'est c'est oral. dañ koy mhm. wax dañuy lépp voilà léegi nag moom daf koy bind. Mhm. mais man ma bëggoon ko laaj ndax du yàq essence su compte en fait boo ko bindee parce que euh, plaisir bi ngay am bu ñu la koy bu ñu la koy compter ak. je pense que boo koy lii xëy na doo am même même même caf ko bi laa mën a wax daal. caf ko d'accord bu dee bu dee ñun Sénégal man dama ko bëggoon tontu mais duma ko tontu ah parce que aw ma dura tontu ci kanamu borom xam-xam bu mel ni yow ñu ngi lay gërëm merci d'être là euh, ci euh, plateau bi xam naa ne yow ak ñoom Babacar mbay Ndaak yéen a bokk benn mbuus. ak euh, docteur ma Massamba Gueye seen combat depuis très longtemps. mooy ñu respecter conte respecter poésie respecter lépp respecter suñu ay baat muy wolof muy joolaa muy suñu cosaan. xam naa dafa di xale rek moo tax comprendre lul waaye dëkk bu nekk ak aadaam xam nga ñun tradition orale la ñu am moo tax ñuy ñuy lépp suñu ay léeb. non en fait tu m'as mal compris. Mm -hmm. je je suis je comprends tout à fait ce qu'elle fait. Euh, muy léeb bi te man dama ko bëgg man si sama bopp. mais dama ne en fait léeb bi daf koy bind léegi. Ah en fait dama bëgg wax ne boo ko bindee. Mm-hmm. essence su léeb bi day dem parce que léeb c'est lu ñu xam mooy tradition orale en fait. voilà donc man nga tëdd ñu la koy léebal wala nga tëdd sa jabar di la ko léebal. donc euh, bind bi léegi est-ce que moom laa ko laaj ndax ndax du changer. Euh, du du dindi caf ko léeb caf ko léeb bi quoi voilà. waaw dama leen di euh, njëkk a nuyu nuyu ñi ci plateau bi yëpp caméraman yëpp ak euh, seen auditeurs yi. jërëjëf. donc euh, bind bi en fait li ma ci xiir mooy lépp toog di lépp dafa dafa jafe léegi. Mhm. kër amatul sax daanaka. amatul. Mhm. kër yi kenn amatul jot. Mhm. parent yi amatuñu jot bu ñu wàccee yàkkamti nañoo tëdd noppulu et puis genn wàllu mag ñëpp dem nañu xam nga kër boo gis daan na am maam. Mm. am na sax ñu fi ne waaye maam yi léegi dañoo wéet sax ci kër yi. wallaay ndeysaan parce que duñ gis xale yi. duñ gis seen doom yi buñ xëyee ñëppay dem. Uh-huh. bu wàcc jotee buñ ñibbisee kenn ku ne yàkkamte ngaa lekk ba tëdd. Mm-hmm. xale yi ñoom bu ñu tëjoo seen néeg yi ñu ngi ci internet bi. xam ngeen li xew yëpp ci internet bi ci portable yeeg yëpp. Mm-hmm. kon lépp moom dafa amatul. amatul place mhm. place lañ jël mhm. euh, jox ko leneen ak leneen ak mhm. kon bu fekkee ni nit ñi toggatuñu lépp lépp bu yàggee day réer day réer loolu moo tax ñun léebkat yi daanaka ñun ñëpp noo ngi bind ah. euh, ma Samba mi ngi bind Babacar mi ngi bind man maa ngi bind keneen keneen ñu ngi bind Maam Daawur mi ngi bind donc euh, man li ma gën a xiir nag ci mbind mi c'est que ña ma daan àndal di déglu léeb bi may xale ñooñu bi ma amee doom ba commencé di leen di di léebal samay doom mhm. yenn saay ma xaw a gag ci benn léeb léeb bu ko defee damay woote ñi nga xam ne ñoom laa daan àndal di déglu mais ñoom ñëpp dañuy reetaan xaqataay ni ma waa yow yaa ngi ci yooyu ba tey <laughs> anu nan man de fàtte naa yooyu mhm. foofu ma ni léegi man bu fekkee ne binduma li ma yor man mhm. kon ñëppay fàtte finalement léeb yooyu mhm. dañuy daal di disparaître mhm. loolu moom ma décidé ma bind d'accord waaw bind naa yu bari ndax dama bëggoon lépp dama daan wër di déglu ay lépp mhm. waaw li ma bind bari na bés bu yépp génnee moom macha allah li birit nañ bari d'accord léegi euh, man li ma bëggoon xam bind bi dafa jafe parce que yow da nga koy bind ci ci wolof defe naa te da nga koy bind tamit ci français mais je veux dire écriture bi en français est-ce que amul lu muy laaj ci ci xam-xam wala dafa am ni nga ko ni nga ko sentiree rek nan nga koy bindee bind bi day nekk. Euh, en fait du nekk écriture recherchée comme booy def booy bind en français en fait. d'accord te est que tamit dina accessible parce que bu ñu xoolee ne même bu ñu nee pour promouvoir langue nationale yi bu ñu seetee ne ñu bëri tamit mënuñu mënuñu lire mais est que tamit même bind wolof bi est-ce que tamit dina am njëriñ bu dee dañu bëgg promouvoir langue nationale yi muy hmm. wolof beeg mandeng bi wala wala séeréer wala pulaar waaw yàlla def na ci français laa njëkk a bind. bon bind lépp mën naa wax ni jafewul ndax loo xam la ba pare lu fi mhm. nekkoon la ba pare. Mhm. waaye nag niñ la ko waxee au fil du temps dafay day day xaw a am ay changement mhm. euh, dina am sax euh, ay ay ay ay yoo xam ni léegi amatul walla boo xale yi xamatuñu ko di nga dem ba xaw a changer sax ay tur kon pour rendre ko fidèlement dafay xaw a jafe dëgg la waaw mais bu dul loolu français bi moom wax dëgg yàlla yomb na wolof bi it jafewul wolof jafewul ndax même fekkee ne jàngoo wolof yow livre bu ñu bind ci wolof walla ngay pël walla ngay soose yooyu livre boo ci sëggee di lire début bi mooy jafe mais au fur et à mesure ngay dem moom muy day ñëwal boppam mhm. am na nag ñoo xam ne ñu ngi fiy jàngale euh, langue nationale yi mm-hmm. loolu bari na fa mm-hmm. waaye jafewul vraiment mm, mm, d'accord bind nag mm-hmm. d'habitude bind nag il faut dafa am yoo xam ne daf ciy ànd tout waaw loolu nag moom mënta ñàkk muy lépp di leneen ak leneen damay bind aussi poésie mais euh, alhamdulilah voilà donc euh, bu ci nekk boo ko bindee ci ci français di nga ko tekki ci wolof euh, wala boo bind ci wolof di nga ko tekk ci français defe naa loolu itam avantage la itam ah. pour nit ñi parce que am na ñoo xamante ni ci dëkk yu bëri defe naa ni euh, yéen yéen a ngi campagne boobu tey ngir ñu gën a jox cër suñu langue nationale yi am na ci ay mag ñoo xamante ni sax dañuy ibbi ay école mag da ci jàngale mbindum wolof mbindum joolaak mbindum sooseek ñoom seen làkk yi fi am te defe naa loolu am na solo ñun tamit dañuy rêver ñuy bindee français ci ay këyit di bind euh, anglais ci ay kayit këyit euh, suñu wolof bi par exemple parce que am na yeneen euh, lakk yu fi nekk ñu koy bindee noonu mu dem ba mu gën a yaatu war na gën a yaatu ndax wax naa léegi ne ñu bari ñu ngi ciy yëngu mm-hmm. ba di ci génnee ay livre mm-hmm. ay livres yoo xam ne ba ci ay calcul ay grammaire ay yëpp a ngi ci mm-hmm. kon li des rek mooy Sénégal xam ni Afrique yëpp dañoo war a jublu ci suñuy langue mm-hmm. waaw ni tubaab yi fonkee seen bopp mm-hmm. ñun itam ñu fonkee noonu suñu bopp wallaay li ñu moom te xam ne suñu langue yi ñun liñ ci mën a liñ ci mën a lijjanti mm-hmm. mënuñu koo lijjanti ci beneen la wallaahi wallaahi waaw te jafe-jafe moom amu ci d'accord l'essentiel mooy politique bi waaw politique bu langue nationale yi waaw bu ci ñëpp jubloo comme ni ci euh, fi ne nii am na ay maison d'édition yoo xam ne loolu rek la ñuy def. très bien ci wolof ñooñu farataal nañ ko. Mhm. waaw mu am écrivain yoo xam ni itam. ñu ngi ñaan yàlla euh, éditeurs yooyu mën leen a éditer ci mhm. langue nationale. Mhm. waaw kon defe naa ni ñun écrivains yi ci langue nationale. ak éditeurs yi ñun liñ ciy daj. buñ ci euh, politique yi fekk see. Euh, nga xam ni dinañ dugal langue nationale yi ci école yi. parce que dañ ko war a jàng ci école yi mm-hmm. waaw loolu bu ñu ko defee yaakaar naa ni yëf dina dina gën a baax voilà et jël nañu jël nañu exemple ci euh, ay euh, docteur Massamba Gueye Mame Daour Wade docteur kii euh, professeur Babacar mbay Ndak man ay nit la yoo xamante ni dama dama nekk xale di leen gis di màggaale ak ñoom donc bëri na ci loo xamee ni acquérir naa ko ci wàllu xam-xam ñoom ñooma ci ginde gindi parce que xam naa xam naa seen njëriñ et am na ñeneen ak ñeneen ñu fi nekk ah voilà Lamane waaw ni nga ko waxee dañ cee bari mm-hmm. dañ cee bari te wax dëgg yàlla lépp dafa dafa am solo boo mm, xam ne dafa am solo moos wallaahi euh, mag ñi c'est pas pour mag ñi daan jël seen temps mm-hmm. toog di léebal xale yi mm-hmm. ginnaaw nag amatuñu espace yooyu ah léegi mu am ay nit ñoo xam ne ah ñoom ñi nga lim lim fii. Mhm. ñooñu ñëpp ñu am fula lañ. walaay dañu am fula dañ leen di woo yéen ba ay bitim réew. dañ leen di woo ay France dañ leen di woo ci dëkk yu mag yi. Euh, ngeen di enregistré parce que léegi. laa jógee ba ki dem voilà mu amoon euh, le salon du livre d'Alger. et dafa gën a neex en plus de def ko ay livre nit ñi di ko liir xewal ngeen léegi di ko def ci ay disques. ci ay CD pour nit ñi mën ko déglu ñu di ko déglu waaw c'est que euh, livre yi il faut mu am mhm. fi mu ne nii il faut livre am mhm. ndax gone yi dañoo war a lire dañu war a lire kay waaw lecture bi amatuñu ko mhm. mais comme ñoom xam nañ ne soxla nañ ay léeb de xale yi ñoom soxla nañ ay léeb espace bi lañ amatul jotam nañ amatul waaye fu ñu wéetee ak livre léeb par exemple génn récréation toog ubbi ubbi livre ñoom dañoo bëgg léeb waajur yaay war a mën a gàddu lii am na yaay yoo xam ne waaw comme comme mënatuñu lii donc dañuy jënd ay lii di ko liiral seen doom ba ñu nelaw normalement noonu la war a demee am na koy def très bien am na ñu koy Cheikh man dama bëggoon mu may ñu benn léeb bu ndaw rek ñëpp sax waaw mu ñu tuuti ayca <laughs> waaw waaw kon gi xanaa ma xaw koo tënk waaw nga tënk ko waaw waaw ndax benn jigéen la woon moom moo nekkoon aaw buur bi mhm. buur daal di takk ñaareel indi buur nag bëgg aaw euh, ñaareel bi ba gëmewu ko mhm. ñaareel bi ne ko buur nag sa aaw bii dama bëgg mu génn néegam néegam man ci laay dugg mhm. na génn itam kër gi dem ci fas yi moom mooy wëgg fas yi na demit ca tool ya mooy toppatoo tool yi daal ne aawam bi mu ni ko yaa ngi nii nag sangu bu ko defati sa bopp bii bu bu ko léttati waaw yow daal nekkal ci fas yi nekkal ci tool yi mhm. ah aaw bi daal di def noonu aaw bi nekk ci tool yi nekk ci fas yi ba ndeke ba muy génn ba mu bañ koy génnee néegam ndeke boobu moom dafa ëmb te mësul woon ëmb xamul luy ëmb buur it mësul am doom mhm. léegi mu ne ci àll bi wenn bés mu daal di yëg métit mhm. ndeke mi ngi wëssin ba mu wëssinee ci àll bi mu am ay seex seex yi mu daal di leen fomp bañ set mu jël ay xob ay xobu banaana daal di leen ciy lëmës garab gi mu leen euh, suufu garab gi mu leen juree garab googu dafa am lëm lëm gi mu daal di dugal loxoom fomp ko ba mu set wut ay xob yi yaatu lal ca fekk ba dafa xalaat mu ni man sama doom yi ma leen yóbboo kër ga buur lu ko jabat yi wax da koy def jabat yi mën naa reelu samay doom uhuh. kon daal bu ma leen yóbbu uhuh. mu daal leen jël dugal ci lëm gi ñibbi dem ba mu yeggee xooñ lañ ko jox ci jigéen juy doog a wasin mu lekk daal di dugg ca fas ya tëdd mm-hmm. fajar mu xëy rek daal di daw daw ba yegg ca tool ya dem ca lëm nga dugal loxoom pour génnee doom yi mm-hmm. dajul dara mm-hmm. mu làmb-làmb dajul dara mu yur noo def lu ne gisul doom bi ndeke moom ba mu ñibbee dafa am jaan ñàngoor boo xam ne na mu yem mhm. ndeke da doon doog am ay doom moom itam mhm. mu génn nag di wutal doom yi lu ñu lekk mhm. mu ñëw ba tolloog garab gi rek xetu xale yi dugg ko mu daal di ñëw yëkkati bopp bi dugal ci euh, lëm gi yem ci xale yi noonu mu daal di leen lëmës génnee leen daal yóbbu ba mu yeggee doom yi ni ah am nañ luñ lekk mën leen déedéet buñ leen lekk ñii dañuy dogg juddu yéen maase léegi dama leen di yar yéen ñëpp ngeen bokk ndey bokk baay mm-hmm. noonu la jàngi def ah ndaw si ndaw si nekkee noonu xale moom ñu ngi leen yar ñu dem ba commencé màgg mm-hmm. ñoom ñu daal di xool ñu ni kii du suñu yaay moom moo jur ñii waaye ñun juruñu ndax bokkuñu dara mm-hmm. ñu daal di koy wax seen yaay jaan bi seen yaay ni leen waaw wax ngeen dëgg ñu ne ko nag ñun dañoo bëgg gis suñu yaay kon mu leen bu jot di ngeen ko gis ñu toogaat ak diir ay at xale yi dëgër nag ñu ne ko nag ñun dañoo bëgg gis seen yaay mu leen jot na daal di dem wutal leen ay yére yoo xam ne yére yu rafet yoo xam ne ay sëru rabal yoo xam ne euh, am na or bu pare ñu ñaw ñaw yu rafet mu solal leen wutal leen fas yu weex yoo xam ne nañu mel kenn mësul kenn mësul gis yooyu fas ci ci dëkk yi mun leen nag seen yaay mi ngi leen jure ci garab go eh, ron garab gu tudd karajo ci soose karajo mooy garab gu ñuy defee teinture mm-hmm. foofu la leen juree mm-hmm. léegi xaw ma turam xamaluma ko dara xale yi daal di war fas yi jaan yu ndaw yi ndeysaan seen seex yi di jooy ñoom ñëpp ñu àndandoo àndandoo jooy ñu dem ci seen ñaan bañ demee nag ba sori ba yegg ci dëkk bi njëkk a jot am ñu daw ni ah am na ñuy ñëw am nañu ay gan de am nañu ay gan yu rafet am nañu ay gan yoo xam ne noonu ba ñu yeggee ñëpp génn ah ñu daal taxaw wëy dañuy wëy ni suñu yaay la ñuy wër suñu yaay lañuy ñuy wër ko defee jenn jigéen day avancé ni man maay seen yaay ndax jigéen ñëpp leen bëgg jur man maay seen yaay fan nga juree ñii naa ci néeg bi laa leen juree ñii naa ci kaw lal bi laa leen juree ñii ci waañ wi ko defee ñu ni déedéet yow doo suñu yaay mm-hmm. bu jigéen ñëpp jàllee ñu daal di continuer noonu lañ ko jàppoo ba ca ay guddi yooyu ñu yegg ci seen dëkku baay mm-hmm. yegg nag ñu ni guddi na avant ñu yegg am ku leen jiitu daane ah ñu de seen yaay la ñuy wër waaye nag bu ñu sañoon ñooñu fii la ñuy dëkk seen yaay fii la ne xale yooyu ku leen gis xam ne ay borom barke ah bët set guddi gi d'abord ñëpp jigéen ñi nelawuñu ñu ngay léttu ñu ngi toilette seen jëkkër yi di leen jàppale bi bët setee nag ay ca ñëpp toog buur toog seex yi toog seen seen euh, jabaru buur bi ñaareel bi daal toog ñaareel bi moom moo njëkk a jóg daldi di euh, seex yi ne mbenn ñi ninna mbenn ñi ninna karama den den seex yi tontu ndaw si moo tontu delemal naati delemal naati karama den den karasiya seex yen wulu minto yen wulu minto karama den den ndaw si ni leen ŋaal wulu laaraŋato ŋaal wulu laaraŋato karama den den karasiya iten naati itenten naatiyo karama den den karasiya ñaareel bi ak i jooyam mu daa dem toog jigéen ñëpp jàll ku ñëw rek ñu ne di moom ah xale yi ni ñun kon foog ñu continuer amuñu toogaay mm-hmm. am na ku ne boobu dëkk bi waaye mi affaire baa ngi fees am ku tollu ci ginnaaw daane eh, am na ku des de am na ku ñu ni kan moo des ñu ni jabaru buur bi nekk ci àll bi ñëpp naa moom kooku daa mën a jur ñii waaye kooku buur daal ne ah mais jëli leen ko jigéen la. na ñëw ñu seet. Mm-hmm. noonu mu am borom fas woo xam ne ay ca daw a daw daw jël ko waaye mënu koo togg sax ci ci kaw fas wi tellement xet gi moo àndal. Mm-hmm. ak salte bi mu salte moom dafa daw topp ci fas wi fas wi daw ba yegg si nit ñi bañ ko séenee lañ commencé kay di xet kenn bëggul mu te jigéen ñëpp a bëgg a jur xale noonu waaye ba mu yegg seex yi dañ koo seen muy ñëw rek dañoo jógandoo comme ay resort yëg nañ ko ci seen yaram jóg taxaw après ñu toogaat mhm. moom mi dafa yegg si rek daa def mu taxaw di leen xool xale yi daal jóg mbenn naa ñi nit na mbenn naa ñi nit na karama den den karasiya ntelemal mhm. naati ntelemal naati karama den den karasiya yem yanwulu minto karama denden karasiya mm. ngalwulu karajokoto ngalwulu karajoto karama denden karasiya itele munnati mm. itele munnati karama denden karasiya itele munnati itele munnati yo karama denden karasiya ñu daal xamuñu ne xeeñ na xamuñu ne salte na ñu daal di kay lax suuf daal di xam na xam nañu ni mooy seen yaay ulala oh buur ni leen nag yo buur ni jigéen ñi màggat yi ñu leen yóbbu leen kii ca dex bi ngeen sangal ma ko ba mu set defal ko parfum yi gën a neex toilette leen ko nag gis yoo xam ne ay soie doon ndaw si ba muy dellu sa dafa mel ngelaw li moo ko doon yëkkati. nekk sirène carrément gis nga gis nga gis nga li ci am solo mooy euh, les voyage la en fait. boo ko dee defar xale da ngay gis ni dafay nekk carrément ci univers bi. Euh, on est content en tout cas même ñun voyagé nañu ah. waaw man nga xam ne je suis jamais sérieux ah, je trop concentré. ba mu yegsee di seet fu mu toog bu dafa di ñaanal. mu mm-hmm. ne ko looy def fii jógal. waaw jógal day toog. waaw <laughs> mu daal toog. ñaanal du taxaw du fu mu toog mu ne ko déedéet. Eh. bu fi toog fas yi mag. waaw ah. ana tool ya. Ah. waaw acca acca acca dama liggéey. <laughs> voilà finalement fas yi ñoom amatuñu jàmm. Eh. tool yi booy nañ. Eh. ndax moom mënu ca dara. voilà bala lépp doxee tàbbi ji. bakkan bu ko njëkk foon ci la bokk. <laughs> jërëjëf en tout cas ñu ngi lay gërëm bu baax madame na Gueye eh, di bindkat euh, livre yi ngay bind nag bu ci sotti rek n'hésite pas ñun ñu ngi koy xaar bu ko defee ñu présenté ko suñu mbokk yi bëgg nañu mag ñi di liiral xale yi yow day xam naa say doom suñu borom teral na leen ndax am yaay ju lay léebal itam sant yàlla macha allah voilà yara ngi ci ah. moo sax mm-hmm. waaw lépp boo gis rek am na moral dana yar mag. Mhm. léeb dina yar sax buur. wallaahi merci. ñu ngi lay gërëm bu baax. ay Aïssatou Paye Fall am na beneen livre boo xamante ni euh, ñu ngi ciy wax lépp lu jëm ci wàllu euh, wolof. ah muy euh, conte contes et wolof. voilà e et mythes wolof en fait dama ko jël pour comme moom indiwul livre tamit. waaw moo ma a appuyer li muy wax. que am na ñoo xam ne ñu ngi bind ci wolof ak ci mhm. français mhm. moom tamit euh, si si si conte et légende lay lay lay bind ah. il s'appelle Léopold Diouf je pense ah. que c'est la la la version elle a été encore revisitée bi mooy troisième fois ñu koy ñu koy bindaat voilà donc regardez le livre là si on l'a pas euh, ci image bi mu ngi tudd Contes et wolof euh, du Ceddo au Talibé un livre boo xamante ni on vous le conseille pour ngeen dem wuti ko pour yéen ñi bëgg ay léeb ak tout ce qui s'ensuit c'est aux éditions Harmattan ne euh, poème euh, lii recueil la bu Alioune Badara Bey ñu tuddee ko les bourgeons de l'espoir euh, bi tamit ñu ngi leen koy xelal sànq rek ak invité bi ñu ngi wax ni ñoom bindkat yi xewal nañu di ko def ci ay CD am na itam voilà possibilité ko si net bi très bien tamit ku mënul lire wala déglu ko nga dem si net bi nga déglu nga déglu wala nga lire voilà voilà donc ay poème la yu neex am na am na benn poème bu ma ci bu ma ci gis ñu jagleel ko may mun a ah je te je te le conseille ah Euh, Maïmouna, j'aime ton regard perdu parmi les étoiles, la caresse profonde essentielle de ta voix, au son de sigles triomphateurs, triomphateur, étoffé par la nuit longue des épreuves, le parfum ina, in, enivrant de tes cheveux épars, noyant dans les perles les derniers ébats d'une nuit d'amour. j'aime tes prestes colères ak yeneen ak yeneen en tout cas lii doy na waara non non non <laughs> ça c'est pour moi dem leen ngeen wuti ko donc livre Alioune Badara Bèye la euh, c'est un recueil de poèmes euh, collection xalam Mm-hmm. n'est-ce pas mm, mais merci pour ces livres bah, c'est moi qui te remercie agenda culturel bi waaw agenda culturel bi dañuy wax ci Kalidou Kassé mm. euh, ñu ngi koy wone ci télé bi temps yi yëpp 35 ans mi lay fêté mm-hmm. donc ce sera du 20 euh, novembre au 21 décembre au musée Théodore Monod donc ku bëgg gis liggéeyam depuis 35 ans tapisserie yi mu dooroon peinture am yeeg yëpp dem leen foofu ah il le fait depuis très longtemps voilà. il est très respecté c'est l'un des artistes peintres yu ñu gën a respecté waxatuma Sénégal mais ci continent bi ah Kalidou mm. Kassé voilà ouais. donc moom moo initié euh, maison d'art visuel bi tàggat c'était mm -hmm. le premier mm -hmm. donc euh, j'appelle juste les gens à aller regarder ce qu'il fait le, le second euh,

ah ma ne Daniel moo jur Sorano <laughs> loolu datu sooda la xam naa ci Olympique bi naa ci ñëwaat ak euh, datu Fata xam nga Fata tamit datam la 5 décembre la. bu ñu jógee màggal yi rek euh, nañu euh, joxante rendez-vous fi nga xamante ni moo di Grand Théâtre parce que man li ma gis Fata di di préparer Aïssatou lu doy waar la l'année dernière ñi ko seetaan seetaanoon xam nañ ci dara. spectacle son et lumière c'est-à-dire da fa nekkoon mel ni comme si yaa ngi ci salle yu mag yi nekk bitim réew donc moyens yu rëy euh, cette année et puis il y aura beaucoup d'invités ay nit yu jógee euh, Nigéria France ak États-Unis euh, pour accompagner ko ci guddi googu Youssou Ndour moo nar a nekk invité d'honneur bi donc ce sera pour le décembre peut-être balaa yeewu leen ba jeex ma jox leen